borom gi jaan mooy borom jamono wayal moonu dimbale ey man dana la way ndeysaan sëñ Saaliw yaanu dim ak danu teral danu dim kii sagal nanu teral danoo dimbali kii sagal yow ku mu teral jugal yëgatu ndaxte ku mu teral jugal yëgatu ay waaye ku mu teral jugal yëgatu eh kuy saali xadi jugal wane ko fii ku fii saali xadi jugal wane ko ay waaye ku mu teral jugal yëgatu borom jurul borom géejaan may borom jamono wayaan saaliw moonu dimbale ay man danoo la lay saaliw yaanu di Muhammad danoo teral danoo dimbali kii a danoo teral danoo dimbali kii yow ku mu teral jugal yëgatu mbàkke jar ay waay ku mu teral jugal yëgatu Muhammad Mbuub ku mu teral jugal yëgatu ay waay ku mu teral jugal yëgatu Seydina Muhammad ku mu teral jugal yëgatu Naar ku mu teral jugal yëgatu Cheikh Abdou ku mu teral jugal yëgatu borom njurul borom gi noo wayal Sëñ Saaliw moo nu dimbale man sa waaja atamanu gën moom a doy jege li am ba am di ëx la ca gën am sëriñ sax sunu waaja daa yaatu moom a gën moom a doy jege jamono sëriñ sax teral nañu ñun ñii kes bu ma dëkk te mooy baro ay waay lam defal sëriñ bee doon teewu koy baro lam defal sëriñ bee doon sa bee jomam ba mbidia xana waroon jamono diw ngay borom jamono jaman ba muy jaar xam nga borom jamono Serigne Saliou mi kii moonu teral waaye ñu ne dama bëgg ku Serigne Saliou teral nga ànd ko man Serigne Saliou mi kii moonu teral waaye Njaay loo wax leen sëriñ Saaliwu mi ki moonu teral waay ndeysaan say yow sëriñ Sadio teral na laay saari wu mi ki moonu teral Muhammadu Muhammadu moom yaa bëgg sëriñ Sadio saari wu mi ki moona teral waay ndeysaan moonu daa fegal musiba ndeysaan moonu teral daa fegal musiba ak balaa yi maam ndeysaan daa fegal musiba ak balaa yi maam ndeysaan daa fegal musiba ak balaa yi ma ndeysaan Serigne Saliou mooy borom yërmande billaay ndeysaan dangu ni moonu teral Serigne Saliou monu sagal ay Mbàkke monu teral Serigne Saliou monu sagal Mbàkke monu teral Serigne Saliou monu sagal Mbàkke bu lay defal Serigne Saliou bu la ko yëgal ab Serigne da lay mënal mën boppam mënaale say kay boo jaxee mu taxaw la kii noonu la dëkkee waay kii noonu la dëkkee waay ndeysaan sunu sëriñ danoo teral sëriñ saali woonu sagal may nanu lu ne tey nu sant ko billaay ndeysaan koo xam ne sunu sëriñ danoo teral sëriñ saali woonu sagal may nanu lu ne xayru sànnu bu ko bilaay ndeysaan bu xamee bu rakke yaay sëriñ Tuba ko mottali mi jëfam ci jaam ñi lee saanu ndeysaan Mbakke yaay sëriñ Tuba ci ko mottali moom ci jàmm ñi lee bilaay ndeysaan sëriñ Bamba moo ni woon saali woy matal yéene jee wax jëla dëggal moom ci ni waab li yal ilma sañawal amal la waxoon jëf na ba matal moom ci jàmm ñi ne billaay moo yeesal yoonu murit sappi daara indi tarbiya ndaw ñi la defal la mag ña amoon billaay ndeysaan sëñ Tuubaa sunu sang bi billaay ndeysaan ni yamul ci tarbiya mu ca yamoo dafa yama gaaña waaye dafa def la Bamba defoon billaay ndeysaan Daaru Salaam si Tuubaa fi see xaloon sëriñ saani woo see xalaat am Seex Béthio sunu sang be billaay ndeysaan ki moonu teral mo yeesal yoonu murit sappi daara indi tarbiyo naw ñi la defal la mag ña amoon billaay ndeysaan ki moonu teral yaa fekk ku mokkal alxuraan nga def ci moom seen ñi mokkal di ko jëfal yow de ko kosal billaay ndeysaan sëriñ Saliou yaa fekk ku mokkal alxuraan nga def ci moom seex mi mokkal di ko jëfal yow de ko kosal billaay ndeysaan moo tax ay sëriñ Saliou woo tey ma way la ay sëriñ kañ la lale ay borom jannatu yaay ki gën yaa gën a gën ay sëriñ saaliwo dal bu santal sëriñ saaliw ay sëriñ saaliw dal sallam santal ay borom jannatu yaay ki gën a ay sëriñ saaliwo tay ma way la borom ay mbay ma kañ la dani ay borom jannatu yaay ki gën yaa gën a gën ay sëriñ saali woo tey ma way la borom jàppandal ay sëriñ saali woo tey ma way la borom jàppandal ay borom jannatu yaay ki gën ay sëriñ saali woo yow defar nga ay ñu na sanko sa ñoo ñaram wale ay sëriñ saali woon dambal sandal saali ay sëriñ saali woon dambal sandal sëriñ saali ay borom janna door yaa ngi gën yaa gën a gën. ay la gën Saliou. kan moom sangal Serigne Saliou. ay Serigne Saliou. loolu dëgg la. ay borom jannatoo. yaa ngi gën de yaa gën a. kan moom sa waajee. moom wàllu. mu xam ne moom sa waajee. moom wàllu. Eh, ay sëriñ ay sëriñ ay sëriñ dema kañela ay borom dema ko yaay bi sama singa yokku ga da ko te puule ga sëriñ bi aar na la jox na la ka la ka sama tëral umma baraw nday san sëriñ bi aar na la ma gi daaru salaam sa kaala gi jox na la ëpp la yeesu la sëñ mu taxaanee na la ku ñu noppalal wàcc nga waaw waaw ndeysaan cuub gaala gi jot cuub xoolal wàcc nga lii waaw waaw ndeysaan sëriñ bi aar na la jox na la kaala gi su yéegee rafet su wàccee rafet su yegee rafet waalo su wàccee rafet ay way bu yegee rafet loole su wàccee rafet kaala gi su yegee rafet tango su wàccee rafet ànd ñi ànd ak sëriñ Saliou Thioune du nu am defet sant nga fi du fi ame fi du fi ame diinaar na la jox na la kaala gi su yegee rafet loole su wàccee rafet kaala gi su yegee sañ nga noo jënde ay sabadooro laa na moom ngir sa bay bay ku bëgg si saaliw diggal tuur jënde ay sabadooro sa gaaba man de leer wuut naa man di naane jënde jaay wuut naa Yeah! danoo jëndi ay sabadooro yaa nu woon ngir sama baax nu moom Seex bi tuy sa baay ay sabadooro sabadooro man de weer wuti naa Madina man de weer wuti naa Madina de gaynde jaay wuti naa ku ki njuróo nganu a sagal nganu ni sigil nganu sa baay ba amul morom te du am ay ay sagal nganu ah baay sigil nganu sa baay ba amul sëriñ Saliou Thioune tegal nganu a sagal nganu ni sigil nganu sa baay ba amul morom te du am ay ay sagal nganu ah baay sigil ah, nganu waral fa nga nu jëlee fa nga nu jëmee moo ko gën a góor ni fa nga nu jëlee jëmee moo ko gën a fu la nit yóbbu nu sa aaja amul daral bana aba sagal bana ki jël metti ayba ki jël metti waaye fa mu nu jëlee waaye fa mu nu jëmee kii ba mu nu jëlee kii ko suma ci waay fu mu nu jëlee kii suma ci waay fu mu nu jëlee fu la neex yóbbu na sa baay ba amul wara daral ngano sabar ngano day sëriñ sa baay ba amul moroom amati nga ndam defati nga ko sama nen sëñ Sall sama nen bi laay ma di jëfi ndigal amati nga ndam ndam rek defati nga ko sama nen la sama nen bi laay mooy di jëfi ndigal sama sëriñ amati na ndam ndam rek defati nga ko sama nen la li may way sëriñ Saliou ndigal Thioune laa ko way di way bu bees ma bëgg ñëpp aw muy mbar mi mu liggéeyal Serigne Cheikh ci posé moo tax ma ne ko amati nga tam defati nga ko sa mooy di jëfee ndigal ma bëgg na su ma nee amati nga ndam ñëpp ne ndam rek ma ni defati nga ko ngeen ni sa mënin waaw waaw wala Cheikh Abdou amati ndam defati nga ko ay waay sama nin bi lay mooy di jëfee bi lay mooy di jëfee ndam rek defati nga ko sama nin amati nga ndam ndam rek defati nga ko sama nin eh, sama nin bi lay mooy di jëfee ndigal amati nga ndam rek sama sëriñ di jël lu mu jot ndam rek dur ko mu rot sama nen mu xëccat yeneen ndigal yaa ngi ci yoon amati nga naam ndam rek dëgate nga ko asama nen la sama nen bi lay mooy di jël si sax sama sëriñ yow la nga jëf ndam rek foo sëy ni sama nen ni juru la nga jëf ndam rek Fawzayni ndam rek si sàmm a ndam rek Fawzayni sama nen eh bilay fuusi woo bilay si dëkk coono jibala ndam rek ku tëbati nga la sama nen bilay mooy di jëfee di gërëm jun a waaxu xam yoon wa moo ko gën si saa ndigal si saa dina ko asamanin la asamanin dilay may nañu kenn mën a waxu xam yoon wa moo ko gën si sal ndigal si saliw ndigal yaa ngi ci yoon amati kanam ndam rek dina ko asamanin la asamanin dilay may nañu kenn mën a waxu xam yoon wa moo ko gën si sal ndigal si saliw ndigal yaa ngi ci yoxe amati nga ndam tam rek kun amati nga ko asama nin la siisal sama nin bilaay mooy di jëfee liggéey bilaay kafe ga mu jëf tam rek sukar ba mu saf sama nin kafe ga mu jëf rek sukar ba mu saf sama ni tax nga ba doom nga yaa ngay naan di takanti mënin sama sëriñ mu kafe ga sukar ba mu saf ni tax nga ba doom yaa ngay naan di taxante ko ndam rek sama nin la sama ndax sama sëriñ fur ba fari manqué wu fa fur ba fari manqué wu fa fur ba fari manqué wu fa ni tax nga bu ñuy naan café ñu teg ca wuro amati nga dam ndam rek sama nin la sama nin dolli koo waral nga am sas bay ko bam jeex si Cheikh dolli la siñ sal yaa gëm sëriñ Cheikh nga am sas bay ko bam jeex si Cheikh dolli la siñ sal yaa gëm am sas bay ko bam jeex si seex doon li la siñ sal yaa gëm sëriñ seex dolli am sas bay ko bam la bëti maaye woon la la waxoon su jeex rek mu jox ko dinga tabax kër ga bay raax yow nga am sas bay ko bam jeex siñ seex doon la takkul am nga ndam yow ki la ngeen bay Serigne Cheikh kooku kuy mbërëm dëkke ay ndam defet jeex ah bay ko bam jeex Serigne Cheikh dolli la Serigne Sall yaa gëm takkul am nga ndam yow ki la ngeen bay Serigne Cheikh kooku kuy mbërëm dëkk ay ndam defet jeex yow nga am sas bay ko bam jeex Serigne Cheikh dolli la siñ sal yaaga su doon lamb la ba jël ruwaa bi cuun su doon lamb la ba jël ruwaa bi yaay ruwaa de saren sa ndam li wuute na njaax yow nga am sas bay ko bam jeex siñ seex dolli la daru bu doon lamb daan nga ba jël ruwaa bi cuun su doon lamb la daan nga ba ruwaa bi cuun yaay ruwaa des arènes sa ndam li wuute na njaax yow nga am sax bay ko bam jeex siñ seex la siñ sàll yaa gëm Malick su doon lamb la daan na ba ruwaa bi su doon lamb la daan na ba ruwaa bi yaay ruwaa des arènes sa ndam li wuute na njaax ah nga am sas bam jeex si seex dolli la bakul am nga ñoo ngi sibile say supporter bakul am nga ñoo ngi sibile say supporter bakul am nga ñoo ngi sibile say supporter ñépp bég te naan sa ndam li cunde daa leer yow nga am sas bam jeex si seex dolli la bakul am nga ndam ñu ngi sifile say supporter bakul am nga ñu ngi sifile am nga ndam dan bakul am nga ndam ñu ngi sifile say te naan sa ndam li cum de leer ah nga am sas bay ko bam jeexoo ay waay dan bu bakkul am nga ndam ñu ngi sibile say si por bakkul am nga ndam ñu ngi sibile say si porter bakkul am nga ndam ñu ngi sibile say si por yëpp te naan sa ndam li moom de daa leer si Abdou jërëjëf waaw waaw ndeysaan bakul am nga ndam ñu ngi sibile say supporter bakul am nga ndam ñu ngi sibile kul am nga ndam ñu ngi sibile say supporter yëpp bég te naan sa ndam li cunde daa leer ah ndeysaan ay waay dellu far amul doo gis itam kuy def recours dellu far amul doo gis itam kuy def recours mbër mu mag mi le mbër mu ko songooti dem teer ah nga am sas bay ko bam jeex si seex dolli la si sal dellu far amul doo gis itam kuy def recours dellu far amul doo gis itam kuy def sunu mbër mu mag mi le mbër mu ko songooti dem teer ah nga am sas bam jeex sëriñ Saal yaa gëm Eh, moo tax ma way ko di sunu sëriñ Cheikh waaw maa ngi ñëw Cheikh Béthio di bàyyam muy sunu mag ñu bokk lépp waaye di suñu sëriñ boroom la 10 jours borom cant gu mag gi ñëpp a ngi koy wàcc di ziar say Mata Mbàkke ak soxna maam bu soog maam Faati ku ne xam na ni suba sama soxna dafa am doom ma war ko tuddal waaye donte nit ñaa ngi sama kër sax di ma xaar waaye suñ fàllu laa waxoon koo xamal na ko def na ma def tax ci dan mbub mi ak waa këram yi Mouhamed Sëñ Xaadim dañoo doon ñu baax bëgg ma te Serigne Saliou rekk tax ndeysaan Adja Mami borom Mbàkke nga xam ne barki démb laa ko fekk Mbàkke mu teral ma teraanga ju bari wallaay yow maa la raw fuuf sama xarit nga sama nit nga wallaay ndeysaan kontaan naa suma xol sedd na jërëjëf bëgg naa danaa la woo sax suma paree incha allah bu ko defee Daaru Salaam ma seddaloo rek ñii jàpp gi ñu ma jàpp di ñu baax barki dem bi muy sant ca Ndakaaru Askia Touré ñëpp teew dañu dama bëgg nga bàyyi ba mbooloo ba ñëpp ñëw nga jël micro bi wayal ma Serigne Saliou keroog bi ma paree Askia dañu ko tawfeex mi indil ma ko sama kër lu mu gën a gaawee ndax am naa cofeel ci moom te loolu lépp ñoom la yàlla na ko Serigne bi fay. muy jàmbaar nag di ñoo xam ne ñu am jom lañu ñoom muy dan di ñoom ñi ñëpp ku ci nekk la nga nekk yaa ngi ci fësal sa bopp di ci fësal sëriñ bi moo tax ñun lu nekk luñ xat-xat danañ ko ànd ak ñoom ku ne xam ne ni bis bi day xam na ci man ku dégg ni may waaye xam ne sonn na waaye sunu mbokk yi toog suñu saal may sàkk nga ñaanal leen mooy tiktokeur yi ñoom Ablaye Naar ak Ndiaye Lo Cheikh Abdou Diouf boutique suma xarit yi ci euh, Cheikh bis bi kañ la sax le première ñun ñëpp a ngi koy waaj dañuy sargal di sant du Abdoulaye di ci ñaanal way dawlu yi di ci sargal xaritam mbay sa par sa par di ko ci rendre hommage kon na ko ñëpp waaj ñu ànd teew ci le bis moom Serigne Saliou woote gis naa fi Salam Ndiaye moom itam kon xam naa ni dem fi ne dafa war naa war naa baax ah roqe nag roqe yóbbante woon na ay kàddu muy sama soxna ndax ku ne xam na ni suba la suba la am tuddam mu amoon yéene ci bis bi lool waaye nag yàllaa ko dogalee nii moo tax ñëwul waaye bég na ci teraanga yi fi mu ne ku gis roq ya ak na mu mel teen ba macha allah nga xam ne dan buubu fa jaar king cosmétique waaye nañ ko tàcc sama soxna fi ne teen bu rafet la tey yëfi yëfi jaar. gàmm bu baax loo ko indi boobu moom xam naa ni waa koñ ba ñëpp a ngi ciy commande ah maam Faati nee na ak maam bu Socé nee na moo leen tax a ñëw waaw maa la am na ñu ñëw ba Dakar ngir jël si waaw tin ba tin ba lañ gis tin ba la ca tin ba la ba lañ gis moo tax léegi dama yóbbu man sax faaw ma tàmbali <laughs> wut ci fi ndax ñoom jaay doo ji. <laughs> ñoom dañuy dañuy man di ma napp napp yi leer li ma dugal ci ay mbedd yu xam naa ci dan lañ jaar rek <laughs> léegi dan ñu ngi ñaan yàlla na Serigne Touba ful xéewal yi bitig bi nga ubbi yàlla na ko fépp ci àdduna bi te mu ànd ak wér ak mucc ak gudd fan xam naa ni kon damaa ne ci programme damay damay wayal njaay loo soppee Saliou bi rek waaw waaw. waaw yow. Euh, nee naa la guddi gi tey su ma sañoon danga koy fanaanee ba fajar su ma sañoon dangay fanaane guddi gi ba fajar. Euh, ku ne xam ne mooy toog woo site internet yi yaatal mais Serigne Saliou Mbacké bu la dimbalee da koy sant foo mën a ne moytul kii bi. bu la sëriñ Saliou dimbalee man su ma defee woon nenn rek nu dul nii ma defee dina ne ma Mouhamadan mii ñu xam nii mu defee du nii la war a defee ndax wax dëgg yàlla lu waay lu waay gàtt gàtt xam-xam war ngaa xamal ni tey fi ma ak ci sama njàmbaar àggalu ma fi loolu nag la ñu yaakaar parce que njàmbaar day weddi tuuma waaye ndimbalu sëriñ Saliou fu ma àgg ci àdduna moom fa àggale barke Cheikhul Khadim sëriñ bi dimbali na ma ba nga xamante ni nii awma lu dul su may intégré place yu mel nii ma woo ku mel ni Tawfekh Mbaye moom Serigne Saliou ma woo ku mel ni Pam Mboup woo waa kër Serigne Saliou yëpp woo Mouhamed Niang ñu ñëw ñu sant ndax man sama dund gi li ci des lépp ak cant laa ko bëgg a def barke Cheikhul Khadim ndax wax dëgg yàlla ku ñu dimbali yaa mën a xam baram bëti xol rek moo mën a xam li xew may sant nag Touba waa Touba jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk Touba di bay seen waar bu baax a baax baax ma leen gis ci réseaux sociaux yi naw leen ndax tey suba déggante naa Cheikh Abdou ma ne ko yow da ngay da nga am ñaari rôle yoo xam da nga koy représenté mooy da ngay def comédie ñëpp xam la ci mais dafa am véritable vérité yoo xam ne boo koy wax ki lay déglu dootul gis comédie ci yow day xam ni nit ku am xam-xam nit ku xam li muy wax mooy wax nga gis ko ci mel ni njaayloo su ma limee sax mun naa juum ñooñu ay fierté lañu te fii leen dëkk ci dëkk bi Ablaye Naar lay Naar maanaam bépp tiktokeur boo xamante ni yaa ngi dakaar Dakar te tiktokos man maa ngi lay sant bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla li leen indi ci bis bi sax jaaxal na ma kenn ku ci ne am na ñoo xam ne déggantuwuma ak ñoom mun naa ne seen yéene ak seen xalaat bu rafet moo leen fi indi mooma Lamine xam nga li may wax xam nga ni bis bi xat na loolu def ma ci dara man dew ma fenn damaa toog lépp dañ koo dofal nit nag soo demee ba ñu defal lu mel nii war ngaa taxaw sant mbooloo mépp xamal ni leen lii ma def nii yàlla xam na ni awma ci benn coono fi ma toog laa toog coordonné ñëpp appel rek rek rek am na ñoo xam ne tey laay doo ko gis ak ñoom loolu nag bu la ko ay nit defalee wax dëgg yàlla di nga taxaw seede ko ci kanamu àdduna bi yëpp képp fu teew te nga xamante ni yaa ngi ci réseaux sociaux yi nga nekk influenceur defal nga ma loo xam ne lebal nga ma bar boo xam ne jàpp naa ni sax mënu ma la koo fay sant naa ñëpp ku dégg ni may waxee xam ni mbégte la waxu mbégte la may sant itam Cheikh Mouhamed Mboub di rakk ci man di sant ki nga xamante mooy Serigne Saliou Mboup ñu bokk nday ak baay di sant Gora Mboup mi nga xamante ni bi ma Serigne Saliou booleeg Sall jiite 2000 année 2000 bi Hizbut-Tarqiyyah génnee seen seen mawhiba bu neex boobu noonu ku ne xam na Sall jiite Serigne Saliou boole maag moom ma ne ko am naa mag ju nekk ci daara ji ñaari mag mu ne ma kenn ki fu mu ne ma ne ko ci grand yi la ne muy Pape Gueye sëñ Saliou Mboup mu ne ma keneen ki ma ne ko keneen kaa ngi Daaru Salaam Serigne Saliou ci boppam ne Sall jiite yëbbu leen ci seen mag jooju. ñu naan Gora Mboup ma ñëw fekk ko Daaru Salaam année 2000 wax dëgg yàlla mu tetta ñu tatagal ñu te Serigne bee ma ko dénk Gora Mboup chaque jour ma ko mën naa ko Serigne Saliou moo ma la dénk ndax année 2000 la ma Sall jiite jëlee fii Touba année 2000 la ma Serigne Saliou booleeg Sall jiite yëpp ma xel ko ma fekk la Daaru Salaam ma ñëw nga taxawuma ci saayir ak ci baatin ak ku ne xam na Abdou Lahad mi nga xamante ni maam moom ñoo bokk nekk ci daara ji ñu bokk ndey ak bàyyi sunu borom matali liggéeyam ci daara ji fa la wàññi sama tout tànk bi ma njëkk a am muy góor moom laa ko dippee sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay may sant ki nga xam ni sama seex la ci mbooloo mi di xaadim Ndiaye sëñ xaadim Ndiaye rabe lii ma sol soxnaam moo ma ko moo ma ko may dàll yii ma sol moo ko jox ba ma daree ànd ak moom ba léegi yàlla xam na ni danoo ànd àndu seex lañu ànd man ak moom mus ñoo tàkkalikoo dañuy mero waaye duñ tàkkalikoo sëñ xaadim maa ngi lay siyaar maa ngi lay sant bu wér a wér di fesalaat tamit sama coloré ak yow ndax Serigne Saliou moom ma boole ak yow di insister ci Cheikh Mouhamed Mboup sama rakk la waaye taxawaayu mag la taxaw ci man bëri na xam nga mag moo naan rakk jaaral fii defal lii mais moo Mouhamed ci boppam mooy xool li ci sama kanam ak li sama ginnaaw duma ko moytul naan ma jaaral fii defal lii te lépp lu ma digal wala lépp lu ma defloo su ma ko defee dama ciy gis réussite te ñoo bokk ndey ak bàyyi mu xat loolu ñàkk jot loolu di ma taxawu ci zaahir di ma taxawu ci baatin man nag boo ma gisee rek di nga xam ni man am na ñu may jàppale ci zaahir ak ci baatin njër gi nag moom la moom moo ne sama ginnaaw di sant Serigne Saliou Darou Salaam di doom ci Serigne Béthio kii képp koo xamante ni jóg nga rek am cër ci Serigne saaliw def na lu ma mën ak lu ma mënul ci yow. nee naa ko yaa ñu gunge ñu ñëpp moo ñu gunge ñu ñëpp sëñ Saliou fekk nañu fu ne sëñ Saliou kër gu ñu dëkk xam na ko sëñ Saliou place bu ñu sanc sëñ Saliou cuun xam na ko koroog bi mu ñëwee Massa Zeng may sanc suma place bu njëkk ba ma toll ci peinture. mu dugg ci place bi dogg ci Serigne Saliou Mbacké dama place bii ku ne dana la fekk danga ko am fu ne moo tax tey bi ñu déggantee ma ne ko cuun ma ne ko wax dëgg yàlla la nga ñaanoon ak la nga dogg woon ca bërëb ba maa ngi ciy teg sama bët su ma limee damay juum waaye daal ku xool ni ma waxee xam ne samay mbokk ñëw nañ maa ngi sant waa xayra fa ma yaroo maa ngi sant itam sama dëkkandoo yi nga xam ne ñoo ma luyee fi ma nekk te xataluñ ma yaatal ma ci lépp sama employé yu jóge Dakar ba ñu ñëwee ne danoo bëgg a wuti fu ñu dëkk wut location dañ leen leen bu leen dem fenn di wuti location kaay leen ci kër gi ñu héberger leen ñu mettre leen à l'aise fi lañ nekk te xam nga ne xale ndakaaru neexut nekkal Ouest Foire la jógee ma déplacé ko indi ko fii di ko liggéey loo mu nekk sama assistante waaye yàlla xam na ni kër gi mu nekk taxawu nañ ko fi mu nekk ni taxaw nañ ko ci zaahir ak ci baatin kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp waa kër gi mention spéciale macha allah gis naa yaatal gi ndax bis bi def naa ko ci ni ma ko mën a defee rek waaye ñu comprendre ma mun naa ne doomu borom kër gi ñoo organise ba it magu dongo Serigne Saliou magu dongo tawféex tey bëgg naa tawféex ñi nekk sama ginnaaw ñëpp ñëpp ñëpp ay ndongo sëriñ saaliw lañ kii kii nekk sama ginnaaw di Lamine Seck gàtt gàtt am na ñaar fukki at ci daara Serigne Saliou kon xam nga ne kii magub dong la sëñ Xaadim jaañ sëñ Xaadim Diagne euh, moom it sama magub dong la gis nga wax dëgg yàlla man de santaat naa sama borom bu baax a baax a baax a baax sant naa bu baax a baax a baax tey munoon naa ànd ak munoon naa def li ma def te doo fi gis benn nit koo xamante ni dongab Serigne Saliou buñ gërëm la boobaa dañ naan kii li muy woote ci Serigne Saliou anamu mais base bi li fi toog ci ay magu donga tarbiya yoo xam ne danoo liggéeyal Serigne Saliou ba am ngërëmal Serigne Saliou xamu ñu toll ñu may lim ñëpp Serigne Saliou moo leen yar ci loxoom bu tedd ba gërëm leen bàyyi leen ci dëkk bi ñuy doxal te la leen Serigne bi bàyyi woon ba tey ci lañ nekk muy Basirou Lo sëñ Basirou Lo maa ngi lay nuyu di la jotal sama siyaar Serigne Khadim Diagne di magub dongo maa ngi koy nuyu du ko jotal sama siyaar Mouhamadou Amine Seck maa ngi nuyu dongo tarbiye Serigne Saliou yi fi teew yëpp di nuyu prince bi nekk sama ginnaaw su ma nee prince bi bu ma tegee nuyoo bi ci loxo Malick Malick dina ma joxal dina ma tegal dina ma jàllaleel nuyoo bi prince bi jóge Dakar ñu jóge Kees ñu nekk ci tuubaa ci dëkk bi ñëpp maa ngi leen di beral nuyoo man daal daan naka naa yemale samay kàddu waaye lu ma mës a def ci àdduna bitig bu ma mës a immigré bi ma ci dàkkal tawféex da nga ma mayaat ñaari morceau yu tàng jël ci Serigne Saliou xamul war a lool fi nga fii fii ñu toog nii li fi dong Serigne Saliou li fi Serigne Saliou defar ci base bi dafa bari te yow xam nga ni defaru Serigne Saliou nga kon bu fi dong Serigne Saliou yi teewee nga leen di woyal ci Serigne Saliou boo ne boo naree bàyyi dama lay ñaanaat yeneen ñaar yu tàng jër nga yëkkati ko joxaat ko Serigne joxaat ko dong Serigne Saliou yi di sant ñëpp nag képp ku fi ñëw sama cliente bu fi ñëw nag cliente bu fi ñëw am na client yu jóge dakaar ñëw nañ am na client yu jóge Louga gis naa leen ñëw nañ ak ñu jóge Daaru Musti ñi nekk ci ginnaaw ñëpp samay client lañ képp kuy sama client nga ñëw ci bis bi gis naa la rafetlu naa ñëw bi nga ñëw maa ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom dafa la jàmm ci loo yëg ak loo yëgul barkewul Xadim directeur Decotes ah Touba Daaru Karim waaw directeur waaw comme noonu directeur Decotes Touba Daaru Karim moom tamit na fi ñi fi bari nañ